啊。 ahlan bikum Karim Wade ma ngay jéebaana njiiti réew mi Macky Sall ca France bitim réew ca kanam bailleur de fon ya laas yéen kaaya ñu ko xamal turbine yéen kaay dëggal xibaar bi ne Karim Wade xam nga lu def fa sàkku ci bailleur de fon yi maanaam tubaab yi nga xam ne ci ñoom la Macky yaakaar ngir ñu jox ko milliards yu bëri nee na leen damaa bëgg ngeen amal audit yéen bailleurs yi ci alal ja ngeen ko joxoon bu njëkk ba fan la ko dugal Le Quotidien yéen kaay na ci ab leetar ci la ko jaaree moom Karim mu mel ni ku tiiñal Macky ci kanam borom koppar yi wal fajir yéene kaay ne Karim Wade kay li mu wax groupe consultatif bu Paris fa leer nañ nee na leen laaj leen Macky ñett junne ak juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent milliards yi ngeen ko joxoon ca 2014 na leeral fan la ko dugal bala ngeen ko joxaat ngir ñu jox ko nag tey ji ak suba le 17 ak le 18 ci la Macky fas ne jàkkaarloo ak bailleur yooyu ca réewum France enquête yéene kaay na Macky nag li mu soxla mooy tubaab yi jox ko ñaar téeméeri junne ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk 2850 milliards Ahmed Lamine Sadji xam-xama màcc ci wàllu koom nee na ci jamonoy nguurug Ablaye Wade ci la doxalin wii wëlbatiku dem ci ay mbumbaay xumbute l'observateur na ko waaye makki nag moom fa tëral ab plan li mu bëgg daal mooy ronqi banque mondiale xuuf paa jël ca milliards yu bëri ngir dugal ko Sénégal 2850 milliards ci suñu xaalis vox populi na ko bu ko wàññi makki lam soxla bayeer yi jox ko ko 4684 milliards la maanaam lu jege juróomi junney milliards waaye Karim Wade a kaay na ko makki xam nga lan lay wuti ji France xaalis bu mu doxalee ñaareelu mandat am bi moo tax Karim Wade bind bailleurs yi ne nañ audité alal jëm dugal ci réew na ko leeral fu jaar te mooy yéen a kaay na kàddu yu rëy bu am solo ci wàllu koppar moom la Macky war a wax tey ca France bu jàkkaarloo ak bailleurs ya ngir gars yi ko jox xaalis laas yéen a kaay na ko waxu Karim Wade gi nag ma ngay commencé tee xel aa yow nee na Macky fa jural Sénégal bor bu dul xaaj du jeex te borom yu bëri jaarut yoon assemblée nationale joxuñ ko ci autorisation moom moo leb rek ci turu Sénégal ñu ne waay Karim Wade nee na Macky guuta gi mu la bëgg na bu askan wi Boubacar Sadio ci exclusif yéen a kaay nee na man réew mi ñàkk a wax dëgg gi moo ma jaaxal ak këpp kees ba ñu fal sax di leen jox ay poste dañuy xool yow ci ban xeet nga bokk loolu baaxut ci réew nay leer neen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent yu Prodac ya waa OFNAC dugal nañ ca seen loxo amal ab enquête ngir yëf yi leer si du quotidien moo ñu na a a a addu ci ay mbiram ki addu ci mbiru Madické Niang mooy wal fajar yéen a kaay bi muy amal moom Madické Niang ma ngay xam le bu yore réew mi suñ institution yi diine ji dana ci fës lool source ay yéen a moom di ñu xamal ne parti politique yi ak coalition yi lu jëm ci parrainage bi ñu wax na moom lañ am du dëgg de ah yow seetal Sénégal mi inscrire te war a wote juróom benn million doomu aadama la ak lu topp léegi nag boo dajalee parti politique yi ak coalition yi li wax na am nañ ko ci signature parrainage moo ëpp fukki junne yoon ñu bind ci liste bi xam nga ne ay naxaateeg tappalee ngi noonu waaye lépp dana leer ba su wote ba leneen lu leer ba mel ni jant tusubaar mooy ne transitaire yi nekk Sénégal mere nañu lool njiital port autonome bu Ndakaaru ah yow seet dal nee nañu ka jiite woon port dem gam dem réccu nañ ko ndax ki ko wuutu lam fa nee du jàmm direct info moo ñu ko xamal li ñu xamal moom Dakar Times mooy SNHLM sàcc nañ fa lu jege benn milliard ci suñu xaalis xam nga ne loolu dafa ñaaw li rafet te njiit réew Macky Sall def ko mooy tontu ay laaj yu bari lenn ci askan wek internet bi les éco yéen a kaay yeggee ñu tontu ya bokk na ca deer nee na dana tax dëkk jam ñaajo mbuur Thiès nekk lu gën a yomb jàng ak liggéey Dakar tamit waxi nopp journaliste Sénégal yi ak la ñu jëm ci nag ñii naan nañ ci génn nag buñ ci génn nag ñoom siyam nee na leen daal nañ def ndànk bañ a gaawtu ba dugal suñ bopp ci ak tooxi doona tàggat yaram Liverpool mbuqi na maan yu ñetti bal ci benn Sadio Mané moo njëkk a lakk caax ya record yéen a kaay ñu ko xamal stade yéen a kaay dëggal xibaar bi xibaar bi ñu sunu lamb yéen kaay wax mooy na Balla Gaye 2 fa meloon ne ab buur ca Kaolack ndangaan yëkkati na fa kaddu ne la waxoon ci Modou Lo lay waxaat dana ko corriger ko du ma daan face à face ba ñu waroon amal nag Modou Lo ñëwutoon ñeneen ñu ñëwaat mooy Boy Niang jàkkarloo bu saf sàpp tàng jir neex lool noppante nañ fa xuppante jaay seen combat ni ki samedi bi weesu ca stade Lamine Gueye bu Kaolack ndaañngaan yéene kaay bi ne mbooloo ma fa nekkoon dafa bëri ba jéggi dayo ndax Baye Ciss moo doon amal lancement mouvement ba kaar waaye yéene kaay bi nee na foo natt mbooloo ma weesu na ko foo bëri bay tuuru kaw stade bi ëtt bi buntu ba biir stade bi kenn amul foo taxaw lu mësta am Kaolack ndaañngaan ci mbooloo mu bëri ca stade Lamine Gueye fees njiitire Macky Sall yónni njiiti jëwri nit bun Abdallah Jonn moom fa ñëw jommi ndax mbooloo Souleymane Ndéné Ndiaye na ko lii kenn koo def Kaolack lu dul sa jamonoy fal jooja Ndiaye